comme ni ngeen ko xamee syndicat national bu collectivité locale moo fi daje seen statut moo wax ñaari at yu nekk ñu daje fenn euh, seen secrétaire général Amadou Xuma ak bureau bi ama jàpp ni dañ ko war a yóbbu feneen ñu def indi ko Thiès Thiès nag di dëkk boo xam dëkku syndicat la ndax xam nañu Thiès lu mu joué ci wàllu grève cheminot yi n'est-ce pas ville la aussi de refus et de résistance Thiès bi nga xam ne moom la ñu daje fi tey ak bureau national bi Euh, liñ fi fekk te ñu war ko wax te mu neex ñu mooy région yi ngi fi teew yëpp région Sénégal yëpp teew nañ fi ba mu des Kédougou jafe-jafe moo tax ñëwuñu ci trans ci yoon bu jafe waaye ñi fi teew ñëpp góor a jigéen ki ab kàddu gi benn la gërëm nañ seen responsable Amadou liggéey bi ñu def ak bureau bi ba jàpp nañu ñoom congrès bi ñu am en 2017 benn candidat lañ cay am ñoom ci biir collectivité locale te candidat bu Amadou lay nekk amul kenn ku wax le contraire ñu jàpp loolu wax ni aussi jàpp nañ àndandoo nekk benn bopp pour que congrès boobu bu ñu fi jubloo yàlla def euh, candidat bi ñu bëgg daañu ko fal mais aussi fexe ba seen syndicat fa mu nekkoon euh, gën koy gën a yokk euh, xam nañ ni élection représentativité dañ ñëw waxtaanee nañ aussi élection représentativité yi. CNTS ñoo ëppoon doole dañu bëgg aussi élection yi di am incha rab bi fa ñu jóge woon ñu rawal lu mel noonu ñu nekkaat ci kanam loolu wax nañ ko. jàpp ni aussi jafe-jafe yi euh, jeexul ndax réforme mi ngi nekk en cours loolu aussi daañu ci wax seen secrétaire général daan danu ci dellu si léegi waaye lañ ca waxoon maanaam ci li nga xam ne lii mooy réforme yi réforme yi ak euh, fonction publique locale bi débat yooyu nga xam ne amoon nañ ko am ko jëm ko ci personnel bi personnel bi ñu redéployé te mairie yi mënuñ ko absorbé manque de financement bi nga xam ne yenn mairie yi attanuñu ko yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ba léegi syndicat yi nañ ci doon ñafe di ak di ci waxtaan ak kilifa yi ak maire yi dañ koy kone di ko def pour que loolu nekk seen gannaaw. ñàkk teewaay bi ci au conseil. ñàkk teewaay ci au conseil am nañu ko naqarlu parce que gëm nañ ni liggéeykat yi ci biir ko au conseil bi waroon nañ ci am place waaye euh, autorités yi jàpp ñu ni war nañ cee nekk ñun gëm nañ liggéeykat yi mënoon nañ ca nekk ndax liggéeykat yi collectivité locale yi am nañu xarañ. expérience boo xam ne mën nañ nekk apport certain ci biir collectivité yi am na yaakaar ni li ñuy wax daañu ko dégg boobu beneen ne ñu seet wala bokk ci mise en œuvre bi ci installation ñu xool dañ leen ci mën a euh, intégrer ci ay euh, xawma ci yeneen beneen formule